preuves, da ciy am képp koo xamante ne tey jii war nga défendre sa bopp nga défendre sa bopp pour la manifestation de la vérité de la vérité. d'accord ci wàllu vérité boobu la temps may ñëw ci Serigne ma dem ci DG DG euh, donc sànq yaa ngi koy wax dette ak wàllu déficit ah lépp mu nekk loo xam ne ni tudd nga ko genre euh, kàcc lañ ko waxee ci ci wolofal gu gu xaw yaatu tuuti mais lu mu ci mënti nekk situation bi ndax da jàpp ne dafa mën a affecté li jëm ci wàllu confiance su euh, partenaires yi nga xam te ne li financier bi premier ministre daal di tudd ci Sénégal. non loolu gawma ko mais dinaa si ñëwaat. xam nga xam nga ñun bi ñu bi ñu jëlee pouvoir bi. Mhm. mars euh, dañu ñëw fekk benn situation bu catastrophique avant sax audit bi am ba ñu xam euh, dette beeg déficit bi fu mu toll vraiment. bi ñu nekk ci opposition bi amoon nañ soupçon amoon nañ ay éléments parce que ñun aussi dañ doon am ay informations mais soo nekkee ci opposition munoo am situation globale bi mais on a toujours dit et sans que euh, grand boobu mi ngi koy wax président Ousmane Sonko l'avait dit que chiffres dañ leen manipuler on a toujours dit aussi que suñu budget budget bi ñuy bi ñu doon voté bi assemblée nationale bi doon voté c'était pas un budget sincère ça ne collait avec les chiffres ñun ñu amoon déjà à notre sax tey état bi ñu ñëwee automatiquement à cause euh, de par exemple Euh, surfinancement de 605 milliards boobu ñoom ñoom dugal ci leneen alors que FMI dafa bëggoon ñu dugal ko ci ay dépenses yoo xam ne budgétisé nañ ko ñun gisuñu ko bi ñu ñëwee tout suite on s'est confronté à des problèmes yoo xam ne conjoncturels avant sax ngay dérouler ce plan sur le moyen et long terme dafa amoon situation moo xam ne sénégalais yi dañ ci nekk nga war ko lijjanti léegi léegi léegi damay joxe exemple il y avait euh, un peu plus de 200 milliards yu ñu waroon pour rappel bourse étudiants yi mm-hmm. ñu lijjanti ko Euh, dette bi ñu amoon bi ñu amaloon opérateur agricole yi de deux mille vingt un deux mille vingt deux deux mille vingt trois ñu dugal si ko loolu yëpp euh, gouvernement Macky Sall defu ko woon ñu jël vingt milliards jox ko jox ko jox ko paysans yi ñu jël CMU dix milliards yu muy abaloon hôpitaux yi ba yenn hôpitaux yi di bañ sax ku ñëw ak sa carte CMU ñu bañ la recevoir ñu bañ la faj mu nekk situation bu tan tendu hôpitaux yi am dette ñu jël dix milliards fay pour soulager leen loolu c'était des urgences yoo xam ne suñ ko deful woon rek problème dina am. président Bassirou Diomaye Faye wax na ko jour bi muy def interview avec la presse sénégalaise mm-hmm. même ils étaient dans une opération ñoom de sabotage niveau bi ñu amoon par exemple en matière d'hydrocarbures c'était à un niveau très bas mais heureusement ñun on nous a informé balaa ñuy ñëw pouvoir ba on a pris les décisions rapidement mais dañu bëggoon suñ ñëwee ñu am problème mu énergie problème mu électricité sénégalais yi ne xool leen ñi ñëw nañ ay cuune lañ mënuñu dara mais ñun yooyu yëpp on a anticipé donc ils nous ont laissé une situation du jàmbat du dara mais pour ñu wax dëgg bi sénégalais la loolu moo amoon. léegi boo ñëwee yow li nga war a njëkk a def mooy régler situation boobu donc euh, jël xaalis bi nga fi fekk wala dem utiwaat xaalis pour financé loolu lan moo indi eurobond yi ba ñun ñu soobu si jël ko 750 millions de dollars yi si emprunt yi par placement privé li ko indi mooy situation boobu parce que dañu refuser jël xaalis bi ñu FMI waroon jox. basé su les chiffres erronés de l'ancien régime mooy deux cent trente milliards yi lu tax ñu refusé ko jël parce que FMI dafa wax ne soo demee ci conseil d'administration FMI su FMI xamee ni bi mu lay jox xaalis ay chiffres erronés moo taxoon nga euh, moo taxoon nga jël ko automatiquement immédiatement da nga ko war a remboursé waat te loolu dafa newoon dugal Sénégal ci yeneen problème ñun on a refusé ça dem outil euh, yeneen voie mooy émission émission de d'eurobonds yi 750 millions de dollars ak émission yi ñu def à hauteur de 300 pour urgence si ñu amoon pour mun ko pour mun ko régler très rapidement donc loolu gouvernement bu responsable moo koy def on a préféré wax dëgg suñu partenaires yi si chiffres yi ut xaalis pour lijjanti problème urgent yi nga xam ne dañ ko waroon dañ ko waroon régler pour sénégalais yi wu loolu mooy dëgg loolu la gouvernement président Bassirou Diomaye fay def moo tax fi ñu toll nii Sénégal suuxul parce que ñii li ñu li doon seen calcul mooy balaa décembre 2024 Sénégal dina nekk si situation boo boo xam ne sénégalais yi yëppay génn ci mbedd bi sénégalais yi du ñu amati euh, lu ñu lekk sénégalais yi dinañ am problème électricité loolu lañ ñu préparé loon moo tax d'ailleurs ñun aussi ñu def benn subvention de plus de cinquante quatre milliards sur les produits de première nécessité pour tamit soulager yooyu yëpp ce sont des mesures conjoncturelles mais mesures structurelles yi li koy indi mooy référentiel bii ñuy présenté le 7 octobre nga xam ne c'est basé sur notre projet mooy opéra projet wu PASTEF loolu mooy tax ñu trouver les solutions structurelles sur le moyen et le long terme pour génne Sénégal si jafe-jafe ñi nga xam ne des décennies de mal gouvernance de euh, de de corruption moo ko ci moo ko ci dugal. ñëw ci perspective yi ci kanam tuuti mais en attendant euh, DG laataa dem ci kii très rapidement itam euh, dañ ci tudd itam di ba euh, donc en quoi noo noo mën a comprendre le fait que ñu ñu ko ci ci cette situation. waaw xam nga ñun. malheureusement Sénégal dañu am beneen problème bu grave mooy que dañu am ay opposants yoo xam ne amuñu niveau ils n'arrivent même pas à comprendre le sens du débat c'est-à-dire da nga leen di da nga leen di joxoñ weer bi ñuy xool sa baaraam euh, man gëm naa ne sànq ni ñu ko waxee débat bi léegi Sénégal mooy lii nan naka la ñuy def ba dugal ñu situation bi dëgg la du dëgg nañ génn ñoom ñu ñuy wax seen tour ñu répondre le ministre Cheikh Diba man xaw ma ko mais su ma juumul était directeur de la programmation budgétaire ñi xam état dëgg xam nañ lan la programmation budgétaire yi def lan la fan la fan la euh, niveau de validation am yam lan la ministre des finance yi def et cetera su fekkee dañu def enquête ba gis responsable kuñ si mën a gis sa responsabilité nga bokk si ñun nga bañ bokk si ñun di nga ko génne di on va le situer et amul loolu amul si président la république la commencé président de la république si boppam moom moo ak njëkk assumer responsabilité ne bés bu ñu ko jàppee muy def lu dul noonu yoon dafa war a dal ci koom donc du benn ministre wala benn DG la ñuy jéem protéger ou quoi que ce soit bi nekkul foofu képp ku sa responsabilité nekk ci lii incha allah dinañ ko situer débat bi mooy euh, audit bi audit des finances publiques li mu wax dëgg la ñi ñuy wax ni ñoom ñoo ko def wala am nañ si responsabilité nañ génn répondre venir à ce débat là mais soo fekkee débat bi dañ ko bëgg a jox ñoo xam ne ils n'ont pas le niveau gëw sax ils la capacité de comprendre Euh, chiffres yi ñu leen jox ils ont la capacité de comprendre sax mooy déficit lan mooy depuis bi goo mën a xam nañ ko ñoom ay nen yu ñu baxal ak ay montre ak ay sac à main première dame la xam ñun on les laisse à ce niveau là déjà su doon rek su doon rek logique pour logique jour boobu ki génn di wax di def conférence de presse du moom sax moo waroon génn ñi waroon génn mooy Abdoulaye Daouda Diallo mooy Moustapha Ba ñooñu ñoo waroon génn wax ñooñu génnuñu koo xam ne da nga doon ngàññ régime Macky ñun ñu ñëw ne la régime Macky Sall li la fi def yow nga génn en premier lieu di loolu dafa am lu muy wone te yaakaar naa ne que dans les quoi pardon avale quoi nga bëgg parce que yow nekkoon ci gouvernement bi dirigé woo Sénégal yow ñu doon dirigé Sénégal sax da nga leen doon gàññ naan ñoo yàq réew mi naan jubuñu yow ñu ñu ñu ñu def ay euh, benn audit ci ñooñu nga génn mel ne ku leen bëgg défendre ça loolu dafa am lu muy wone dafa wone ne que vraiment euh, ñii du ñu ay opposant ñoo xam ne la Euh, en six mois gis nañ ne que ñu ngi commencé teg dëkk bi si yoon gis nañ ne que seen avenir politique euh, ñu ngi koy commencé su doon am nañ ko sax ñu ngi koy commencé perte amuñu niveau intellectuel donc il faut ñu indi ay débat nit nit soo koy wax euh, ay ay débat di de moom muy indi ay débat nit rek dalay woon ne que niveau bi des na niveau bi des na hmm. alors en attendant niveau bi ñuy xool ndax yegg na am des naag am na dooleeg amul doole sëriñ <coughs> déjà comme ni gis nañu état des lieux li situation bi wane mais dañ ci am ñu ñu ci cité donc de ñoo xamante ne nii yoroon nañ fi ay ndombal tànk yu kawe fii ci réew bi mais dégguñu ñu waxagum xëy na ñu ngi xaar ak ndéegum ndax dinañu wax ou pas mais en attendant seen silence assourdissant bi naka nga lañ ko mën a expliquer wala jàngatee ko. waaw xam naa loolu moom ci sama deuxième analyse lay ñëw. ayca bismillah. xam nga ji bi depuis que Ousmane Sonko premier ministre bu Sénégal. Mhm. Sénégal yëpp nag génnee wax wax ji. Mhm. gis nga tole bi maam. Mhm. gis nga coow li mu jur est-ce que xam nga lu waral coow li. Mhm, lan moo ko waral. c'est parce que Sonko moo ko wax. Mhm. bu ko jomaay waxoon du demee nii parce que dafa am ñoo xam ci espace politique bi Sonko lañ mënul digérer. ah moo tax mu am tollé bi. waaw mënuñu ko digérer <laughs> bëgguñu ko waaye nag seytaane weesuwul ji bi hmm. ñoo xamante ba ñuy ànd fekkewuloo kiy dem ba toog kaso ne man su ma amoon ku may confier sama dund. Bassirou Diomaye Faye laa koy confier tey ay nit bëgg a taxaw ci pexe saytaane rek bëgg a baaxal kee bonal kee loolu pexe saytaane la xam nga déjà Ousmane Sonko bi nga xamante ni moo def révélation boobu ci bi non seulement c'est le premier ministre ñu bañ ko ak nangu ko loolu la yàlla dogal mais c'est le chef de l'administration c'est le patron de l'administration kooku amatul lu koy ump ci information il détient l'administration lu mu bëgg a xam da koy xam. il est informé quoi. tellement bu fekkee bi muy nekk opposition la daan xam la l'ancien président Macky Sall di reeree maasamaak nag tey ba mu yoree nguur gi lépp nekk ci ay ci ay disposition woon kooku tey mooy ki président de la république gën a wóolu ci Sénégal tey c'est son premier homme de confiance dañ ne ko ba ba mu faloo moom la woo ne ko demal xooli ku la doy ma nommé ko ma def koo ministre. kooku moo génn. indi ay chiffres ne lii am na ak information yi mu am ñoo xam musuñu gere état génn ne ko amut c'est catastrophique Sénégal mooy réew mu neex ak mu sëree de lii ba doon leneen réew la dañ lay jàpp Grèce kii euh, euh, Istanbul Turquie jibi ba fa séisme bi amee ba fa séisme bi amee bâtiment yi di daanu am ñuy gaawante di génn di situer la responsabilité du de l'état ci loo xamante ni yoonu état nekk si dañ leen wëri ba jàpp leen ba parce que état kenn du ko weddee noonu ndax information yi mu yor a tax donc kon dafa am loo xamante ni man pour man politique waruñu ko jaral beneen bi Sonko lii muy wax avant mu koy wax dafa fekk ni am na ñu ko dëggal ba pare. ñan ñoo ko te waxagu ko woon de. Mhm. Moustapha Cissé Lo fan la taxaw. Mhm. assemblée nationale lu mu wax. Mhm. bi muy wax ci affaire euh, euh, euh, drogue yeeg et cetera. dani su ma waxoon sénégalais yi la ngeen nekkee yéen ministres yeeg nangam ak nangam danañ leen fekk fa ngeen nekk bu ma waxoon la ngeen nekkee. Cheikh Yérim Seck mi doyen mbay mbaw doon wax léegi mhm. newu leen woon fii bu ngeen def leen lu ngeen mën bés bu ngeen ja ñàkkee nguur gi di ngeen xam ni yàlla julli la santaane ni la ko waxee mhm. bu ngeen ñàkkee gi di ngeen xam ni yàlla julli la santaane le président Macky Sall lan la waxoon il faut tout faire pour conserver le pouvoir mais l'ensemble de ces discours yooyu lan lan moo taxoon ñu ko di wax le président président bu pur waxul woon fii nii dette yi ñu annoncé treize mille milliards la loolu yëpp bi muy xew Sonko waxagut lii moo ma ni la c'est parce que son Ousmane Sonko moo wax mbir mi moo tax nit ñi di ko remettre en cause beneen bi am nga ñàkk xam-xam nag mun na laa pousser ba nga wax loo xamante ni mun na sax wàññi sa crédibilité parce que ñëpp bëgg a doon lu ne dem na ba ñoo xamante ni xamee wuñ leen ci wàllum yoon mais dem nañ ba bëgg a jël sax place juriste yi wala place place économiste yi waxuma nag petit économiste yi ah, yu ndaw ñi. mais fii doo ci dégg ci débat bi posé wu nii économistes yi ñuy wax yi ñëpp xam te naw leen doo si dégg gum ñuy remettre en cause li Ousmane Sonko wax xanaa nga ne nga far ci parti politique képp ku ne lii mën na jouer si crédibilité Sénégal mais fa ñàkk xam-xam tàmbale bu fekkee lii ñu def dafa tax partenaire daw wala bailleur daw jàppal ni bailleur boobu jubut hmm. wala bëggul lu jub ñii indi lu jub loo xamante ni président de la république États-Unis bi mu demoon tey jël nañ koppar yu bari pour accompagner Sénégal si ñu xeex lu lépp loo xamante ni mal mal gouvernance la dugal ci seen alal ñi ñëw indi loo xamante ni ci ci code de transparence disposition UEMOA bi ñu doon UEMOA bi ñu doon développé léegi ci logique boobu la jëm nga ni loolu mun naa dàq ay partenaires. pour foofu feelu la yaa may sa baabu économiste et enseignant à l'UCAD donc moom maa ngi ko gis dans dans la semaine. mu ngi wax ne moom yàgg na donc alerté régime sortant bi. ah mais c'est, c'est de, depuis 2023 nee na il souligne que la crise actuelle était prévisible signalée par des hausses des prix de services essentiels et des emprunts donc massifs sur le marché de l'UEMOA donc selon lui le gouvernement a maquillé les chiffres donc le gouvernement de Macky Sall <coughs> a maquillé les chiffres avec une masse salariale et un endettement en forte hausse passant de 37% du PIB sous Wade à 83,7% aujourd'hui donc il pointe également la responsabilité de la Banque mondiale foofu nag moo tax ma ma kii la pour bàyyi la nga yegg qu'il accuse même d'avoir fermé les yeux sur cette situation waaw mais xam nga <laughs> ji noo koy jàngate si situation logique li ma doon wax nii rek moom la ci moom la ma rejoindre économie yi xam yëpp te ñu xam lan mooy économie duñu yi attendon de voir fan la mbir yi jëm d'autant plus que ñañ ci tudd ñëpp professeur Mbox wax na ko léegi ñu ngi fi. Hmm. ñoom nag am nañ droit de réplique. <laughs> par rapport ak la nga xamante ni yan nañ leen ko. waaw tekki kaaral gi noo koy jàngatee man. Ah, loolu mais am na lu tubaab wax tubaab wax kii ne di rien. léegi pour pour la le journaliste il n'a il ne prend que ce qu'il entend. d'accord en attendant d'entendre le contre-argument de ceux qui ont été indexés. Hmm. maintenant par quelle voie on attendra. parce que parce que parce que je dis c'est en conférence de presse que le premier ministre a cité trois personnes en dehors mmh. du président Macky Sall et ce sont les trois ministres des finances qui se sont succédé, euh, justement euh, ci département mm -hmm. donc ils ont les chiffres les deux ils ont les les montants ils ont donc impérativement war nañu génn sànq wax nga sànq tamit le daw en 30 secondes si incidence yi parce que tamit révélation yi am na fi mu toll tout autre pays qui l'aurait fait aussi dina am fi mu toll Euh, sur le plan euh, sur le plan de sur le plan des des finances à l'échelle mondiale. Mmh. au départ dina impact. Ah parce que on a vu la réaction euh, déjà très vite de Bloomberg. ak yeneen yeneen yeneen kuréel yi ñuy yëngu si wàllu xaalis. impérativement taux yi dina yéeg. Trump partenaire dina am nu taxawee mais je dis encore une fois ñuy demaat ba ci kanam waxtaan am pour véritablement nga renouer le fil de confiance. si li nga xam moom moom nga leen di jébbal jëm si li nga xam ne moo soxal euh, lii nga xam ni président premier ministre yëkkati na ko. Mm. ànd seeg ak yéen ay membres su gouvernement bi. alors ma bàyyi la nga daaneel après ma rek dans 30 secondes. après ma dem ci xam nga Madiambal ñuy wax jëwriñ. Mm-hmm. li ma la wax ni yàggul dara si benn quotidien bu muy bind. Mm-hmm. moom moo ne Sénégal bokk na fi mu toll nii ci Afrique ba mu daj ci dëndu Afrique bi yëpp <coughs> ci six pays yi nga xamante ni investisseurs yi ak yi fa lañ gën a daw jubl kon fii dama jàpp ni aujourd'hui lii ñuy def ni dafay sax gën a renforcer crédibilité Sénégal parce que loolu la institution internationale yi ñu ci bëree bëri ak kuréel gën a mag loolu lañ bëgg FMI inter FMI ak Banque mondiale nag je suis parfaitement d'accord ñooñu war nañ xoolaat bu baax parce que ñooñu seen objectif moo di nërmel réew yi nga xamante ni c'est des pour imposer leen en revanche seen volonté seen bëgg-bëgg ñoom seen yoon ci leneen kon nag jàpp nii la nga xamante ni gouvernement bi daf na ko léegi nag ña nga xamante ni tudd nañ leen ñooñu tam sénégalais ñu ngi leen di déglu bu ñu amee la nga xamante ni am nañ ko lu mën a euh, euh, vraiment. Euh, voilà lu ñu mën a teg suñu loxo. DG waaw yaa ngi bëgg a rebondir. waaw soo mënee may jëwriñ maa ngi parce que sànq tout à fait dama fàtte tontu si question par rapport ak suñu partenaire financier yi. c'est très important gis nga beneen élément rek bu lay wan ne que premier ministre ak gouvernement bi keroog li ñu présenté sénégalais yëpp mooy dëgg bi gisuma ban intérêt lu gouvernement am ñëw ne suñu ay chiffres dañ ko manipuler tout en sachant que am na risque yow ñu lay ñi ngay séqal euh, ay lebal xaalis ñu ne kon lii du réew mu sérieux dootuñu leen lebalati. Mm. donc soo jëlee risque boobu c'est parce que xam nga ne li ngay wax mooy dëgg. Euh, ni ko euh, grand bi waxee léegi dëgg la dina am frémissement sànq maa ngi dégg le ministre Abdourahmane Diouf di ko wax dina am benn frémissement parce que nit choc dina am parce que nit yi ñu gisee ne que Sénégal réew bu ñu jàppee woon réew mu sérieux ils sont capables de faire ça effectivement dina taux yi dina a yéeg et cetera mais man je crois que dans le moyen et long terme day gën a rassurer suñu ay parce que dañ xam ne que gouvernement bu bees bi transparence lañ nekk te ils vont respecter directive u UEMOA ils vont respecter euh, toutes les lois et règlements qui régissent mm. la transparence dans la gestion des finances publiques donc loolu day yokk confiance bi te man maa la ko wax mën nga au mot dans quelque temps dans quelques semaines amul risque euh, risque euh, risque li doon risque ci Sénégal mooy ñu continuer di falsifier suñu ay chiffres. Mhm. ba mu dem benn benn niveau boo xam ne doot ñu xamati fan lañ koy waxee benn niveau bu extraordinaire on allait avoir une explosion de notre dette suñu euh, suñu on serait plus solvable même pour rembourser cette dette là on serait considéré comme un pays qui n'est pas solvable dugg si zone rouge bi kenn du ñu ñemeeti ñëw fii Sénégal di fi investir wala du ñu leb loolu moo doon risque bi mais wax dëgg bi wax li fi am day renforcer la confiance ni ñii kat ñi fi ñëw. seen jub jubal jubbante bi lu sérieux la ñii on peut avoir confiance en eux pour nous donner les vrais chiffres en tout moment ba pare pour ramener waat dettu Sénégal bi si benn niveau boo xam ne ce sera soutenable parce que ku bëgg a def une politique de souveraineté souveraineté mooy nga moom sa bopp da war a euh, fexe ba bor bi nga ameel ci ci bitim réew mu wàññeeku ba dootoo tënkatu si loolu lu bëri. Mhm. pour financer sa économie te loolu xam naa dinañ si ñëwaat. incha allah incha allah li ñuy def ba euh, renforcer économie bi fii ci réew bu Sénégal mais jëwriñ Ndiaye euh, le temps ñu yegg foofu déjà mooy ponk bi ñu nekk mooy ñu teg la ay tuuma mais fi mu toll nii ba tey weddi woo nooy mën a jàngate itam silence ñi nga xam te ne ni tudd nañ leen ci coow li yëpp. tubaab bi am na lu ñuy wax rek ki na diir yee lan. consent consent waaw ñu toll nii bon xam nga kañ comme waxuñu dañ leen a war a waxloo par force. daal ma rey. waay ah wala. daal ko waxul si wax loola. wu par force. buñ ne laa la da ngaa war wax. <laughs> jaajëf maa ngi doon la asafurla. loolu mooy wax ji parce que procureur comme ni ko monsieur Mbaye waxee le juriste comme gars yi waxuñu defuñu benn kii mën na leen na leen yi wooluñ hmm? ñoo leen laaj leen yéen lii ñu leen wax <laughs> lu ngeen ci xam ngeen ci xam hmm. tu donc loolu la bon je pense que sens suñ toll nii jomaay ba mu bëggee jël réew mi comme bale la yoroon fi mu toll nii moom yat la war a yor hmm. wala mais soo amee laaj tamit pour DG tamit nga laaj. <laughs> <laughs> man <laughs> ñun ñun ñun ñun ñun fi mu toll nii problème bi ñun dañ ñoo jaay lekk suñu njëg te yëguñu ko. Baaru yor loo jaay bor te yëguñu ko boru neuf cent mille te am na fi ñoo xam bañ juddoo ba léegi am nañ cinquante ans mosu ñu am cinq cent mille. ka teg seen ndodd neuf cent mille. doy ma kay fi mu toll nii sama sama question yëpp mooy rapport bi avec la justice quoi parce que Macky Sall normalement li nga xamante ni moo doon yoon mooy dañ ko war a jëli fu mu mënti nekk li ma ci xaaw jaaxal mooy bërki démb lañ ko fal benn post bu bees Nations Unies et puis des fois da ngay demander sax est-ce que ay Nations Unies ay FMI ay bonk mondiale duñu ay complices. Hmm. ah ouais parce que tamit. Euh, ñoom ñoom ay banque lañ ala kulli àll li nga leen lépp di nga leen ko fay ñoom ñoom da leen fay moom yaa maquillé woo maquillé woo da leen nit gé ñoom ñoom seen xaalis banque du perte <laughs> di leen fay ñële tamit xam naa yaakaaroon nañ ni dinañ fi toog ba deux mille trente cinq comme ni ñu ko doon waxee ba ah horizon 2035 waaw ba teenu pétrole yi commencé xel ñu couvrir lañu lañu <laughs> lañu lañu maquillé woon taw Euh, Macky Sall yàgg naa maquillé de je te le jure même avant ñu koy fal ah. <laughs> dafa yàgg mag Macky Sall moom sàcc lañ fal moom 2012 ay ah, yow dërëj gën a jëw ma koo may yow fan nga mos a dégg ak <laughs> loolu nga na loo xaw <laughs> ah, Sénégal day bañ may. waaw non loolu sax moo amul fenn dañ maa may huit milliards Ablaye Wade laataa muy nekk président daa mos a am huit milliards kan moo ko may mën a Ablaye Wade. nag bon ah. Oh, huit milliards yow moom <laughs> huit cent mille. déjà ba gars yi duñ ñëw sa bureau di la may milliards. du ma leen ko conseillé. Ah. suñ bëggee seen jàmm. non <laughs> je te le jure. xam nga Sénégal mu yaatoo. bor bi fu mu euh, man je pense man sa man ça a toujours été mon point de vue. gëstuwaat. mais je disais tout le temps que nii ñi ngi leb dëkk bu nekk day leb. Mhm. ne ne waxuñu ne leb dafa bon. Mhm. mais loolu leb lan lay jariñ. Mhm. parce que boo su ma jëlee suma xaalis yóbbu ko su ma jëlee sama projet yóbbu ko la première chose fi may dem wuti xaalis dañuy xool ndax le projet est bancable. la rentabilité. voilà la rentabilité du projet et man je pense que